actualité bi ñu fa seen waxtaanee li nga xam ne nag mooy donc ballon d'or mondial kii di Didier Drogba nee na moom Sadio Mané rek égalé record te mën na jël ballon d'or bi Virgil van Dijk moom mi avoué ne ñoom def nañ lépp lu ñu mën rek pour mu Sadio Mané ñoom bañoon na jóge Liverpool waaye Sadio Mané moo bëggoon a dem loolu nag nañ ci waxtaanee mais d'abord li nga xam ne mooy suñu gaynde beach soccer yaa nga xam ne nag ñoom ñooy tenant du titre champion d'Afrique ñoom nag ñu ngay dem fa nga xam mooy donc Zimbabwe pour daal di représenter Sénégal avec Seyni Ndiaye le plus capé et le plus titré de l'équipe nationale du Sénégal ñu leen di wax ndam ak jàmm dem ak jàmm ñëw ak jàmm avec leur sélectionneur Mamadou Diallo kii di Dembélé également moom ah gannaaw bi nga ne dañ ñëwoon dafa gën a jege jouer équipe nationale bu Mali moom nag nee na ba léegi mi ngi gëm ah, am yaakaar ne mun na jouer pour. équipe de France pour coupe du monde bi néna ba tay dal teg na ci gëta Moussa Dembélé pour dal di jouer coupe du monde bi li nga xamné nak moy donc Richarlison mom nak ah, il est inquiet pour la coupe du monde ndax ah, contre ñi di wa Everton bu Idrissa Gueye Gueye dafa gën ak blessure ay béquilles la yor dafa tiit sax moom ah bay joy jooyu métti gars yi ne moom instant yi daal li ko tiital eh, day bañ yaakaaram dem di coupe du monde dal di tas ki nga xamné ne mom moy Rich James Rich James nak bonne nouvelle ci ben partie ndax ah, ki nga xamné moy médecin bi mu demone séti nee na mën nañ la bañ a opéré waaye nag dina toog lu mat ñaari weer presque du daal di jouer loolu nag tax na bu kii di euh, sélectionneur Angleterre di def soit euh, dina fekk mu wér mais du am temps de jeu est-ce que nag dina ko yóbbu ci noonu kii di De Gea nag tey lay joué euh, cinq centième apparition donc ak couleuru Manchester United mu nekk onzième joueur boo xam ne tey atteindre na la barre des cinq cent matchs. De Gea nekk actuellement le gardien numéro un de Manchester United ki nga xam ne nag mooy Jan Oblak moom nag gars yi jëm nañu woon dafay génn parce que épaule moo problème fekk du loolu dafa am contact bu métti. ak bu mu am ak waa Bilbao loolu nag taxoon médecin bi ñoo xool ko gis ne kii day miir mënatul gis sax dara moo tax mu ne woon nañ ko daal di génne mais rien de grave match bi nag ba mu man ne loo xam ne rek métti na leen ci man maa leen di jéggalu ndax xam naa ne ni ma leen mën a tontoo rek mooy ci terrain bi moom mi nga xam nag boobu dellu see ba léegi déjà euh, dafa indiwu fa forme bi ñu bëggoon mais tamit muy dem Barça gars yi dañu ko mere woon classico yi nag mi ngi nii am ah, Real de Madrid Barcelona 14h15 lay heure sénégalaise Liverpool Manchester 16h30 Paris Saint-Germain à ñi Marseille 18h45 les les classicos hein. euh, Un derby ou Angleterre Espagne acteur France peut-être mu nekk dernier classico ensemble pour ñii di Luka Kid, Luka Modric ak également Toni Kroos Pour être bi c'est nekk classico boo nous ne ñoom jouer nyomnyar parce que Toni Kroos mom bataille tey nangul prolongé et que ñii ngi naan sax bi dernière saison ak Real de Madrid ñii ngeen di gis également Lewandowski Chouameni, Rudiger ak également Rafinha bi mooy premier classico Faut noonu ci Espagne premier match ñu daal di que classico c'est quatre jours donc nous avons dinañ leen xaar baax par rapport ak jongante bi ni mel en matière nag de match ah, classico yi mi ngi ni ah, Barça 61 victoire la am manam juróom-benn fuk ak ben ndam la am ñi di wa Real Madrid am juróom-ñaar juróom fuk ak ñent ci ay ndam 54 ñu am fanweer ak juróom-benn manam 36 fois lañu ñu daal di match nul mais tay ñepp a ngi xaar diggante Lewandowski ak Karim Benzema Benzema ki nga gis ni également ah, di Mendy Ferland Mendy momit must perte classico ba muy jouer Real ba légui mu fekk ko ci terrain bi saa yu joué titulaire rek ah ñi di wa Real Madrid musu ñoo perte classico bi aussi, il devrait être titulaire. Du côté du Paris Saint-Germain et de Marseille, classique également, 33 victoires, fanweer ragnat pour Paris Saint-Germain fanweer ak pour Marseille 32 Drum euh, plutôt il Ben, hein, ak ben euh, match nul l'Union am donc diggante 2022 euh, du tàmbale ko 1971 ba tey jii qui ki également euh, donc Galtier Galtier mom nak, euh, ba muy ak Marseille ba légui ah juroomi nam rek la am ñu dóor ko ci lu mat ak fuk ak ñaar muy 12 mu am fukki euh, ñi nga xamné nak moy Tembo ñom ak wa Marseille muy match nul li nak du top 11 joueurs yi nga xamné ne ñoo ëpp li ñu donc classico bi moy Mandanda ah, Armand Verratti Thiago Silva Matuidi Edouard Cissé Marquinhos Mathieu Valbuena Florent Thauvin Edinson Cavani Maxwell ñoo ëpp ñom li ñu dugal ci li nga xamné moy classico yi ak match yi ñu jouer plutôt ah, donc ngeen gis ni aussi xam Boulaye contre Inter de Milan il est titulaire mom ak Salernitana Salernitana nga xam bëgg enchaîner bi nga xam Boulaye Boulaye dans les arrêts de jeu ki nga également di Leao ñi di Manchester City nak dañu intéressé ci so selon les informations Manchester City Yobuna ñaari yoon ay scout pour ñu dal notamment à euh, Chelsea les mi nga donc actuellement wa Milan Minas dañ ko bëgg prolonger prolongé defal ko juroom ñetti contrat ak euh, juroomi million at gu nek ki nga gis di donc euh, Kalidou Koulibaly le capitaine de la défense et le rock de la défense de l'équipe nationale du Sénégal mom nak tay dafa bëgg enchaîner contre Aston Villa lay doonaan ah, match bi tamit mi ah, donc di ngeen ko ci kanam touti Kalidou Koulibaly ki nga xamné moy donc benen derby Liverpool ak Manchester City Liverpool nak été obligé de gagner bu qu'il ne bëgguta ñu dépasser ko mu perte champion championnat bi benn yoon am espoir daal di koy jël déedéet nag Manchester City bi xam pour l'instant kenn dóor a guleen Virgil van nag wax ci kawu Sadio Mané nee na nag Sadio Mané ñun bëgguñu woon mu dem wax nañ def nañ lépp lu ñu mën suñu kéemtalaay kattan. pour mu bañ a dem parce que élément bu important la ci équipe bi cadre la ci équipe bi ba mu demee léegi gis nañu am na yenn tolof tolof mais am nañ ay joueurs yu mel ne Luis Diaz ay Darwin Nunez nek mais ce qui est sûr que actuellement d'Al Sadio Mané moom mi ngi def son petit bonhomme de chemin et que Liverpool actuellement depuis de Sadio Mané bi duñ ne nak motax mais ñi ngi ci ay tolof tolof yu metti metti metti metti et di yaakaar ne nag ah Sadio Mané moom carrière am dina continuer ballon d'or bi nag gars yi juillet mooy un ëllëg ah dinañ xam ñu bu ne ñëpp sax njortees nañ ne Benzema lay doon donc dinañ ko fësal wax kan mooy nekk ballon d'or 2022 bi donc Sadio Mané aussi ñëpp a koy xaar gis ko ëllëg incha bi ci cérémonie bi ak place am kii nga xam nag mooy liggéey Didier Drogba wax na ci nee na man à part George Weah man maa gënoon a baax. classement ci euh, lii di euh, Ballon d'Or muy quatrième mu ne Sadio Mané ñëw na également nekk tamit quatrième ci Ballon d'Or mu ne gëm naa ne Sadio Mané déjà dina ma dépassé ci ma matière de classement mais aussi gëm naa ne Sadio Mané mooy joueur africain bi gën a jege pour jël tey li nga xam ne moy ballon d'or mondial parce que joueur la boo xam dafa mëne football dafa am charisme dafa am également hygiène de vie et que nek na ko xamné man tay damay gissam bopp ci mom et référence également ci li def ci walum football ci Afrique man bi nga xamné gay nak tay dafa wara jouer sax ah donc Bayern de Munich Allianz Arena mom moy daje ak Fribourg Bayern de bi nga xamné gay nak ah, instant yi mom amatul droit à l'erreur il faut mu gagner match am yi dess bu bëggee euh, demaat ci kaw nekkaat ci raw gi euh, jël tamit championnat bi nek lo xamné ñepp ko ci centre et Sadio Mané dina ci jouer rôle bu important euh, gay yi c'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir Wayland de like mais surtout gars Wayland de woy Vous di abonné ou ñi abonné wul le simple fait ngeen cliquer sur cloche de notification abonnez. ça agrandit la famille on avance ensemble dans la magie de sport TV jaa